Pape Diouf coordinateur communal de Mewane euh, vice-coordinateur départemental euh, ñoo ngi leen di nuyu di leen wax ni coordination départementale bu Tivaouane bi ñu analyser situation yi nga xam ne moom moo xew ci jamono ji ñi ngi sant di gërëm di encourager le président Idrissa Seck ci yoon bi nga xam ni moom la jël bu ñu waxee yoon bi mu jël mooy fàtte boppam pour l'intérêt national ndax jamono bi ñu toll képp ku xool da nga gis ni la situation économique mondiale euh, nationale woote na pour doomu réew mi surtout ñi ni tudde politicien kenn ku ci nekk fàtte boppam pour l'intérêt général de la nation moo tax bi loolu amee ñu département Tivaouane ñu daje di xamle ni ñoo ngi ci ginnaawam ca d'accord nañu ak moom ci loolu mu def di ko ci gunge euh, di wax également ñoo ngi féliciter ministre yi nga xam ni ñoom ñoo dem gunge ji ko moom ci mission boobu muy Aly Saleh Diop ak Yankhoba Diattara di leen wax ne le département de Tivaouane ginnaaw bu ñu dajee euh, ñu ngi leen di gunge di leen féliciter di leen encourager di leen ñaanal yàlla mission boobu nga xam ne moom la ñu dugg muy bu diis euh, ca dara warul ko lu dul euh, international yàlla dooleel leen ci yàlla may leen euh, réussir total euh, Bassirou Ndiaye coordonnateur départemental du parti Rewmi à Tuaon. Euh, la coordination départementale Rewmi de Tuaon, après avoir fait une analyse de la situation sociopolitique du pays et considérant les enjeux et les défis mondiaux de l'heure, considérant la persistance de la pandémie Covid-19, considérant les tensions en Afrique de l'Ouest avec les affrontements des classes politiques, analysant la participation de Réumi dans le dialogue politique national, analysant l'entrée de Réumi dans le gouvernement d'union nationale, salue le courage du président Idrissa Seck dans son élan d'homme politique de dialogue et de paix pour un Sénégal debout et uni afin de faire face aux défis. réitère son soutien total au président Idrissa Seck et exhorte l'ensemble des Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora à répondre à l'appel du président idris Seck pour une mobilisation des énergies autour de l'essentiel. Félicite les ministres Ali Saleh Diop et Yanko Badiatara, salue leur courage et leur fidélité et prie pour que leur mission soit une réussite pour le Sénégal. Enfin, encourage le président Idrissa Seck à maintenir le dialogue avec le président de la République et les autres forces vives de la nation. Fait à Tuaon le trou.